jël ab mool ab brique jël ko teg ko ci biiru xale bi maanaam joggi si taxaw si ba xale bi sedd guyu yéen gi ne na niki démb la ko doon atte ci chambre criminelle mu ndakaaru waaye nag soo moy lu toll si ñaar fukki ati kaso dana ñu ko tëj lii ñaaw na ba jéggi tayoo yéen kaay gi de la témoin ak le soleil nee na niki démb la woon bis bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon armée sénégalaise njiitu réew mi di président Macky Sall daan na fa yëkkatay kàddu nee na xam ne ñooy armée sénégalaise ba pare nag lépp loo na ci yokk waaye tamit wàllu ko dana danañu ko daal di yokk yéen a kaay gi xëy ñu xibaar naan ñu njiit réew mi di président Macky Sall ma ngi ñi nga xam ne maanaam ñooy armée bi yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak le quotidien ak le soleil xëy di ñu xibaar naan ñu Sénégal yi maanaam soo moytuwulee nag danañu am lu leen metti lool ndax ñi nga xam ne ñooy mbulaas yi ñoom nag ñu toog ñetti fan yoo xamante ne daal duñu lakk mburu la ko waral nag nee nañu farine bi ci boppam moo seer te Sénégal yi ni ñu bëggee mburu moo tax nag yéen a kaay gi di vox populi nee na Sénégal yi dinañu jaaxle waaye nag dinañu tumuranke ndax xëy loolu ci boppam moo fi yombuta yéen kaay gi la sa xëy dañu xibaar naan ñu kujje gi nga xamante ni seen liste yu bare bari dañu ko daal di loole nag tax na ñi nga xam ne ñooy waa yeewi askan wi commencé nañu li nga xam ne maanaam mooy xeex bi yéen kaay gi ne nag di réew mi na en tout cas fi nga xam ne mooy Kédougou ni ki démb tension amoon na fa loola ndax ñi nga xam ne ñooy militant yi Moustapha Guirassy ñoom nag ni ki démb bi ngir nag mu daal di koy jébbal ay document yoo xam ne mooy firndeel liste bi nga xamante ni nag dañu koo annulé ca diwaanu Kédougou ginnaaw nag bi ñu ko ko làngalee fa nag jàppante ba daal di commencé am na ñoo xam ne am nañu ay gaañu-gaañu am na ñoo xam ne teg nañu leen loxo yéen a kaay gi de la turbina nee na nag opposition bi jamono ji nag commencé na li nga xam ne maanaam mooy xeex bi ndax nag nee nañu daal lii mënuñu ko bàyyi mu jàll benn yoon yéen a kaay gi di exclusif Adama Faye gorob Macky Sall yekk na musiba ak mbelengana Macky Sall Adama Faye nee na Macky Sall espèce de espèce de monarque di enquête xëy di ñu xibaar ñu Barthélémy Dias ni ki démb doon na jonoo ak taskatu xabaar yi waaye nag ma ngi gën a ëf taal bi taal bi di boy lool moom Barthélémy Dias démb yekk na musiba ak mbelengaan Macky Sall ak justice bi Barthélémy Dias nee na ab complot la amutuma yaakaar benn yoon ci ñi nga xam ne ñoo yor sunu wàllum yoon ci réew mi yéen a kaay gi du l'Observateur Barthélémy Dias nee na nag bàyyu bu dee nag dafa bokk ci complot bi loolee nag a kaay gi di nag dañoo renvoyé waat mbir mi tànk moom duudu ko tege di tribunal yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko ñoom nag ñoo ngi woote li nga xam ne maanaam mooy résistance ak fippo ci l'Observateur moom Barthélémy Dias nee na njabootu ka Njaga Juuf bu ñu yaakaaree ma jox leenu ab dërëm fifty ne ñoo ngi nax seen bopp yéen a kaay gi di Vox ñu xëy fekk fa Arona Coumba Ndoffène Diouf APR nee na nag nga xamante ni ñooy opposition bi Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko di woote li nga xam ne mooy violence loole nag ay caaxaan la ndax opposition bi ñoom xam nañ lu leer ne élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñàkk nañu ko ba pare yéen kaay gi di libération benn bokk yaakaar ñoom nag nee nañu duñu daw duñu ñu danañu jàmmarloo ak ñii ndax nag ñii lii nga xamante ni moom la ñuy def daal maanaam teguñu ko fenn yéen kaay gi di wal fajiri nee na suba ci àllarba ji àllarba ji nar naa tàng jër yéen kaay gi du l'observateur ñu fekk fa ndaw ñi nga xam ne ñoo bokk APR ñoom nag nee nañu daal niki suba danañu mobiliser jàmmarloo ñii nga xam ne ñooy opposition bi yéen kaay gi di sunu lamb xëy duñu xibaar naan ñu combat Papa Sow Siteu jàpp ko juróomi fan